impôt administrate man maay administrateur euh, front patriotique bokk xalaat fii ci Ngent front patriotique bokk xalaat mouvement la bi nga xam ni anciens conseillers municipaux yu nekkoon Thiès noor ñoom ñoo ko créer ak yeneen responsable ci Thiès noor yëpp de personnes ressources ñun nag dañuy yëkkati suñu kàddu pour remercier le président Macky Sall ci liggéey bi nga xam ne def na ko Tivaouane ak yenn këru diine yi li mu def Tivaouane ñëpp kontaan nañu ci parce que Cheikh Hadj Malick Sy la ko defal te ña fa nekk dëkk foofu xam nañu liggéey bi am na solo te li ñu waroon def la def na ko donc ñu ngi koy jaajëfal di xa di ko xamal ni ko ñun moom li ñuy jàppale président Macky lañuy jàppale mouvement bi yëpp ànd nañ ci. léegi nag fan yi si gannaaw am na lu fi xewoon mu doon affaire Lamine Diack euh, suivre nañu événement bi gis nañu itam waa part démocratique yu bare nekk ci di ŋàññee président si affaire boobu ñoom waa part démocratique sénégalaise ñoom amuñu dara la wax ci loolu parce que ki nga xam ni mooy euh, euh, Nicolas Sarkozy nekkoon président si France keroog buñ koy laam-laamee ni Xadafi da ko financé woon ci campagne électorale am bi mu jëlee décision liquide ko Ablaye Wade si boppam la yónni te ku nekk xam nga ne Ablaye Wade moo fi jëloon avion di wër euh, Libye wër Tripoli wër Benghazi di wax Kadhafi li nga xam ni en tant africain war ko woon wax te loolu fi mu mujj moo di Sarkozy dafa mujj éliminer Kadhafi donc affaireu jaag bi waa PDS amuñu daal lañ ci wax ñoom nañu tey seen gémmiñ li nag moo di Euh, ki nga xam ne mooy Idrissa Seck nekk fii à di bëgg nguur gi moom nguur gi da ko da koo fatat rek ba nga xam ne actuellement dafa même dem ba dafa ridicule parce que day commenter ay informations xam ni information yi nga xam ni du dëgg tegul ci dara donc ki nga xam ne da nga am à l'avenir bëgg euh, gérer Sénégal war nga di moytu bu baax di commenter ay information yoo xam ni tegul fen donc ñu ngi remercier le président Macky di ko encourager te di wax sénégal yi ñu jël seen mal en patience te bañ di nekk def ay débats yi xam ne c'est inutile amul njëriñ ñëpp dañu war a ànd jàppale ko ba fal jotuwaat ba fal jotuwaatee bu ñu falee keneen ñëpp ànd ak kooku encore moi je crois Sénégal merci.